alayhi salaatu wasalaam sant sëriñ Touba fedd li suñu jaayanteeg moom ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko kàttanal ko dëgëral ko dimbali ko ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ bi noo ngi yëkkati ab nuyoo di ko jëme ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo teew fii ci salle bi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu fu ñu mën a nekk di jël nuyoo bi di ko teg ci loxob sëriñ Saalix Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Moutada mu àggaleen na ko ci kilifa yu nu bokkal jataay bi yépp di nuyu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom lañu bokkal liggéey bi di liggéeyu Touba Kanam te buñ ko waxee ci anam gu gën a yaatu gi tax ñu daje fi tey di ci jiital sëriñ Abibu Mbàkke mi nga xam ne mooy jawriñu Tuuba ca kanam alaaji sëriñ Tàkko Mbàkke ak sëriñ Abdoulahat Mbàkke moom sëriñ Abibu waaye beral ab nuyoo soxna yu tedd yi nga xam ne macha allah wuy si nañ woote bu am solo bii dellu di santaat yàlla bu baax santaat Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci ab taxawaayam ci liggéeyu sëriñ Touba bi waaye ci ab taxawaayam ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy defal jullit ñépp ci réew mi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ci taxawaayam bu am solo boobu moo sabab suñu dajeb tey bii ñu war a tàmbali liggéey boo xam ne ci biir yoonu murit ci jullit ñépp ci biir réew mi bi du ko fàtte histoire du ko fàtte mooy tàmbali liggéey bu jëm ci asaka ni ñu ko xamee ni ko boroom xam-xam yi waxe réew mu mel ne Sénégal ponki lislaam yi wala bokk ci àdduna bi sax ponk boo ci jël am na ñu koy taxawee di ko lijjanti di ko fàttalante di ci soññee asaka ñi ngi koy soññee naam waaye bariwut ci Sénégal kër goo xam ne dañ koo taxawal ngir asaka kon loolu ñoo ciy sant yàlla bu baax di ci sant sëriñ bi waaye di ci sant sëriñ Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo ci joxe ndigal ñuy sant yàlla bu baax ci bis bu tedd bii di ci dalal mbooleem ñi nga xam ne teew nañu fi tey ngir ñu tàmbali ubbi liggéey bii di kër asaka yi te muy kër goo xam ne li ko tax a jóg rek mooy leeral mbirum asaka ci ni ko lislaam santaane ba mu leer naññi waaye di lijjanti dajale ga di toppatoo séddale ga ci anam gi nga xam ne mooy anam gi gën a dëppoog lislaam ndigal loolu nag bi yàlla dogalee sëriñ Muntaxa yëkkati ko jox ko Touba ca kanam te Touba ca kanam ni ma ko waxee léegi bu ñu ko waxee dugal na mboolem ñi nga xam ne am nañ pas-pas ak yitte ci liggéeyal sëriñ Touba ci Touba waaye Touba ca kanam yaatal ko nag jëlaat liggéey bi dénkaat ko boroom xam-xam yi nu miin lool ci yoon wi te seenub liggéey bépp di rek jàng ak jàngale te wet gi bokk ci wet yi nga xam ne ci li ci li ñuy gën a jàngale ci la bokk ne ki nga xam ne noonu lañu taxawee ci lislaam ci wet yëpp loolu tax na nag ñu tànn sëriñ Saalih Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada jiital ko ci liggéey boobu ngir barkeeloo ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mourtada amoon na yéene ji ci wetu wet gi te mooy taxawal luy toppatoo mbirum asaka noo ngi santaat yàlla bu baax a baax ci ginnaaw bi nga xamee ne ndigal li agsi na ñu ànd ci ak boroom xam-xam yi fi teew ci njiital sëriñ Saalih Mbàkke moom sëriñ Mouhamadul Mourtada ñu wone ci pasteef akuk dogu def ci liggéey bu ama am solo ba tax tey jii ñu mën a taxaw ci kanamu àdduna di présenté wala di lancer wala di daloo kër gi ngir mu tàmbali ab liggéeyam waaye ñoo ngi santaat yàlla bu baax ndax day wone matuk lislaam ci wet yépp lislaam ak matam dafa matale ci wet yépp asaka benn la ci ponk yi nga xam ne dafay lijjanti lu jëm ci wàllu économie ak lu jëm ci wàllu nekkin woo xam ne nit ñi dañuy dañuy yamoo ci seenu nekkin ndax ni ñu ko xamee senegal dafa bokk ci dëkk yi gën a néew doole ci wàllu koom ci àdduna bi ba tax na euh, lu mel nii lu ñu yàkkamti la te luy am solo la ci wàllu développement ak yokk économie bi nga xam ne mooy koom-koomu réew mi ndax xam nañ bu baax a baax ne ci àdduna bi bari na ay kuréel yu ñuy samp di ci xalaat di def ay pexe ngir dimbali waaye néew ju doole yi ñu jóge ci ak ñàkk dem ci ak woomal pexe mu ne ñu ngi ko ci teg xeetu système bu ne ñu ngi ko ciy am waaye solution dëgg-dëgg amagu ci te bu bi nga xam ne nag mooy bu wóor bi te mu mel ne àdduna bi dañ koo ginnaawal mooy bi nga xam ne moom la lislaam indi kon ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ni ma ko doon waxee léegi ci ne Sénégal dëkk la boo xam ne dafa bokk ci dëkk yi gën a néew doole bi ma laajee tey ji ab économiste Sénégal ndóol gi fan la toll néew doole gi daf ne ma téeméeri nit yoo jël ci Sénégal fanweer ya ak juróom-ñaar. seen am-am matul juróom-ñaar fukki junni par at kon day tekki ne ci Sénégal bu dee fukki million lañ ak juróom-benn seize millions juróom-benn millions yi seen am-am cim at matul juróom-ñaar fukki junni kon lim bu baree baree baree ngi fi yoo xam ne yittewoo nañ kër gu mel ni taxaw ba mën leen a dimbali loolu nag du am mukk ci lu dul ne mbooleem ñi nga xam ne yàlla man loo na leen te ñu mën a génnee asaka. ñu takkatoo di ko génne waaye di ko dëppaleeg anam gi nga xam ne moom la lislaam santaane ca ne mu gën a rafete bu boobaa dana mën a jur ay téeméeri téeméeri milliards par at yoo xam ne mën naa delluwaat ci waay ñàkk ñooñu ñu doon wax léegi ndax kat ba tey ci biir loolu euh, wax nañ ne Sénégal téeméeri nit yoo fi jël fukk ya ñu am ba gii giijal lañ ba nga xam ne seen am-am lum néew néew dana toll ci ñaar fukki million par at ci fukk yoo fi jël lum néew néew loolu nag boo ko xoolee bu buñ ko asakaalee na mu war a demee milliards yu baree bari lay doon yoo xam ne bu delluwaatee ci ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo danañ xam ne yàlla suñu borom juumut yàqul fawul ni ko Cheikh Mouhamadou Moutada Mountakha di waxe ci fi ma ciy daaneele nag mooy diggante kër asaka yi ak Touba kanam Touba ca kanam ni aw turam di tekki mooy tuubaate kanam ci lay dox ci lay liggéey ci wàllu dimbali daara yi nekk ci biir dëkk bi ci wàllu xam wàllu wergu yaram wàllu ay lamp wàllu social li nga xam ne xaw naa nuróog lii te amagu wute ci biir loolu nag kon dana dafa dafa dana baax ñu leeral ne kër asaka yi Tuubaa kanam bokk na ci ñi koy taawu ci taxawaayu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal nga xam ne lépp lu ci àttab sariya ñoom ñoo koy xool ba dëppoo ci ba wax ne yoon wii lañ ci war a jaar Tuubaa kanam jaar ca noonee doxal ko loolu nag bu boobaa danañ xam ne képp ku yëkkati asaka jox ko kër asaka yi Touba ca kanam du ko jël di ci tabax santé poste santé wala mu koy dimbalee daara yi wala mu ciy taalub lamp wala mu ciy def leneen da koy bàyyee borom xam-xam ne ñu xalaat loo ci charia ba gis ne fii la war a jëm ñu dugal ko foofee di wax rek ne kon ci diggante boobu ngiru bañ a jaawale addiye ji ñuy jox Touba ca kanam muy weer ñaar téeméer wala lu waaye mën a jaayantee bokkut ak li nga xam ne mooy dugg ci kër asaka yi ndax compte yi Euh, administration bi du benn donte nag Touba ca kanam bokk na ci ñi koy saytu ànd ko ak borom xam-xam yi bi nga yi nga xam ne ñoo nekk ci li ñuy wooye al hayatu shar'iyya kon ñoo ngi santaat yàlla di sant kilifa yi nga xam ne jàpp nañ ci bu baax a baax fas yéene cee taxaw féete li féete kuréel gi kër gi ñu féete ko fépp ba nga xam ne lépp loo xam ne lu ci lislaam santaane la danañ ko sàmmanteeg ba mu àgg ca la taxoon sëriñ Muntaxa joxe ci ndigal kon daal ñuy wax ne bu Touba ca kanam day taxaw temm ci Touba gën a jëm ca kanam kër asaka yi kon day taxaw temm ci Sénégal wala jullit ñi ca kanam te buñ ko waxee senegal gépp lay doon ñuy wàccee kàddu yi kon di sant bu baax di dalal ñëpp di wax ne liggéeyu kër asaka yi tàmbali na ci ndigalal Serigne Mountakha noo ngi ñaan yàlla lépp ñu ci def mu doon lu suruñ borom gërëm dëpp li taxoon Serigne Mountakha yëkkati ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di yëkkati kàddu gi ci ndigalul kilifa yi ngir leeral lu jëm ci këru asaka yi nga xam ne moo tax mbokk yi daje fi te lépp tegu ci ndigalul mawlaana cheikh muhammadunil muntaqa xafizahu llahu taala wa raa mi jox ndigal waa tuubaa ca kanam ngir ñu taxawal kër gi saytu ko ndax solo si mu am te sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar ka wax na léegi pàccuwaay wi asaka am ci lislaam kon di ponk ci ponki lislaam yi muy loo xam ne kon ab jullit nu ko ñàkk ni ñu amee ay jàkk ak i jumaa yu jullee am ay kuréel yu taxaw nit ñi dem màkk ak dikk bu ramadan dikkee ñu koy taxaw di ko saytu noonu la aj màkk it la la asaka it war a amee ay taxawaay dëgg la nit ñaa ngi koy def wala bokk ñu bari ci ñoom seen kem kàttan waaye da di jaamu yàlla goo xam ne du nu la neex nga koy defee yàlla mi moom jaam ñi moo santaane ñu génne asaka moo wax niñ koy génnee moo wax kañ lañ koy génnee moo wax buñ ko génnee nuñ koy def te loolu lu ci nit wàcc rek faraata ji teggi googu bala laa farata ji teggi ko nga sàmm matal sart yi kon muy lu am solo loo xam ne kon kër goo xam ne day fas yéenee dimbale jullit ñi ci ñi asaka ñépp ñu fexe bañ xam ne asaka na leen ndax du ñëpp la war ñu fexe ba ñu xam ne ñii la asaka war bul asaka waree ñu xam kañ nga ko war a génne boo koy génnee noo koy génnee boo ko génnee ba noppi noo koy def kuréel gi ci loolu la fas yéene jàppalante ak jullit yépp nag euh, mbooloo la moo xam ne it dañ ko tënk ci ñetti kuréel yoo xam ne ñoo saytu liggéey bi kuréel gu mag goo xam ne xalaat yi doxal liggéey bi ci ñoom lay bàyyi ko ay kilifa tàmbalee ci ndaw yi xalif général de Mouride ak kilifa ci yoon wi ay boroom xam-xam ay opérateur économique ay góor ak jigéen ñépp ñoo xam ne seen xam-xam jëm na ci wàll boobu danañ ne ci biir kuréel googa di teg seeni xalaat yoo xam ne ci la liggéey bi doxee loolu it di lu am solo ndax liggéey bi moo ko laaj. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. te Serigne Saliou daan wax ne Serigne Touba nee na fu xoolub taalibe jëm rek fa la fa la xoolum jëm te nag ñi bëgg lu baax ñépp maase nañ ci seen xol nongu ko ngir xam ne ci lu baax rek leen tax a jug te ci lañ nekk te lépp lu teg na ci yoon kon nag bu yàlla defee ci ñoom xam ngeen ne fànn yépp ña ngi góor góorlu ci defar ci dëkk bi bayuñ genn fànn nag ña ngi ca assainissement ba ña ngi ca tëli ya ña ca làmp ya ku ne xam ne ne liñ fi def ci làmp rek bari na daare alxuraan yi itam seen taxawaay ñoom ci ànd kook suñu doom sëriñ Mamour Mbacke sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke Fallilou ak ñi mu ko seqal ba ci sëriñ Saliou mu sëriñ As Jaxate ñoo ñëpp di ay jàmbaar yoo xam ne koo ci seen da xam ne kii dara itteelu ko lu may liggéeyal sëriñ Touba ba yàlla def nag lii nekkoon ab roq bu sew boo xam ne ñu baree baree bare dañ koy fàtte te dara jiituwu ko ci lislaam muy muy azzakat ndax boo xoolee alxuraan suñ boroom fu muy waxe ci fu mu waxe julli rek asaka la ci teg balaa xajjul baytee ñëw wa aqaama salaata wa ata zakata walam yaxsha illa allah fu baree bari boo demee ci alxuraan bu tuddee julli rek asaka la ci teg te mel ni nit ñi dañ ko woyofal ba tax ñu di ko fàtte ndax ni alal di taq ci xolu boroomu tax waaye nag dañ xam ne asaka ji bokku suñu alal dañ koo muut xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka nit ñi buñ xamoon li muy jariñ xam la ci suñu boroom jubloon kon ñëpp dañ ne maase ci gën a góorgóorlu ci fonk ko ndax lim ci gën a jublu mooy dana laabal alal yi ki koy def ndax alal ji des ci te génne goo asaka moomu goo ko boo xasee mat nisaab ba asaka war ci rek ci nga xam ne suñ borom waral na ca asaka ak ci ñi ko war a jox fonk gi mu ko fonk tax sax néew na suñu borom lu muy détaillé ci biir alxuraan daanaka lu weesu miraas ak yu néew lu ci ëpp de junju rek borom xam-xam yi àggale ko waaye innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakini wal aamiliina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wa min sabili faridatan min allahi wallahu alimun hakim ba leeral ñi ñu ko war a jox ñu mu doon wal muallafati qulubuhum jooju boo demee ci ibnu asir mi ngi wax ne muallaful xalbi wa muxtaajun garib xaasin xaw nu mu ko waxee sax ca ila axiril bayt kon asaka ñi ñu ko war a jox borom xam-xam yi tënk nañ ko lu ci ne rek am na ci lislaam te bu ko ñëpp maase woon ci di ko def lu bari ci ñi néew doole te asaka ñu war koo génne di leen ko jox boobaa ñooñu daal leen wàcc te sëriñ Touba xam ngeen lu bari ci taarix ne. nit ñëw na yëkkati addee di ko jox asaka ne ci biir sëriñ bi day dem ne ko génneel asaka yi dooru andi addee ji kon na bokk taalibe yi gën a yeewu ci xam ne asaka bokkut ak àddiya asaka àq la joo xam ne àq suñu boroom la yow mi liggéey alal ji ba leew la ba waxtu fekkaat ko fa loolu da ko koo génn ko da war moo waral xam ngeen ne naka jëkk ci lislaam baytul maal téere yu bari da ko ca daa jàng waaye daanaka nit ñi dundatuñ ko sax ndax amatul ndax yooyu ay attale yoo xam ne nit ñi day dem ba fàtte ko wal wal aamiliina alayha boo ko déggee booba ci yooyu jamono dañ daa sàkk ab kuréel buy dem di ko laaj ak di ko joxe kon kuréel gii ñu taxawlaat nañ xam ne loolu buñ ko nosee comme ñoom liñ baaxoo def ci seen mbir yépp luñ ci dugg yàlla defal leen ci ndimbal defal leen ci tawfeex ndax dañuy jiital xalaat bu xóot teg ko ci yoon doo koo yëkkati ndax lii kat bañ ca laajee sëñ bi ndigal yàgg na kàddu yi ci Cheikh Mouhamadou taxaa yëkkate ci soññe it doy na sëkk ay kàddu buñ ci toogoon bu guddi di wax it mënuñoo romb kàddu yi la mu wax kon nag Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na sëriñ Abibu mi ngi leen di sant di leen gërëm yaag waa daayira Touba ci kanam ngir xam ne yéen ñi ko seq ñëpp dama koy faral di wax muy yow di sëriñ Abdoul Ahad ak ñi topp ci seen ginnaaw dara itteel leen lu may sëriñ Touba nekkuleen ci dara lu may sëriñ Touba. loolaa waral itam ñu topp seen gannaaw ñëpp li ñu joxe seenum xel bi ca dal kon nag loolu yàlla yàlla yàggal ko ba li ngeen sumb bëgg ko jàppale ki fi nekkal Serigne Touba ci biir dëkku Serigne Touba bii nga xam ne Serigne Touba dëkk bi rek mooy li ko iteeloon tolu fu defee moom nga ko defal yàlla yàlla gën a barkeel kuréel gi ba lii ngeen sumb tey bu dem ba nekk ay milliards yu baree bëri yoo xam ne dana mën a amal njariñ ñi nga xam ne néew nañ doole te bari na ci jamono. te suñ borom waxtu ne di fàttali ni ñu war a dimbalee ñi nga xam ne dañoo néew doole li yunfiq min zu saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma ataahu llah waaye nag kuy def lu baax nag day fekk nga génn asaka ba wóol la ci des sel na lew na yaa ko moom nga dooru jëkke def lu baax bu dul lool rek lañ ca yéene it jëf ji dee manqué kon ñu ngi jeexale foofu kàddu yi di sant ñi fi teew ñëpp di gërëm di ñaan suñ borom lim ci deele ci tuyaaba yàlla ñu tàbbal ci biir te dara ci njistal bañ ca dugg muy laa tubtilu sadaqaatikum bil mani wal aza yàlla ñu ko yàlla defal salaam aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh